leen di jaajëf suñu mbokk internet yi ñuy suivre ñuy toog ci suñu chaîne bi ñu naan ko 221 people tey nag euh, dañoo ñëw fas yéene jàkkaarloog euh, benn sëriñ bu mag ñu koy tuddee sëriñ Bassirou Ndiaye xéewal bari bokk sëriñ Bassirou Ndiaye nag maanaam comme ni ma leen ko waxee à chaque fois kenn du ko présenté te ci biir réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk xamandoo bitim réew ak diaspora bi sëriñ Bassirou ñu ngi lay siyaare lay dal ci waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi lay siyaarewaat bu baax di santaat bu baax di ko delloo la moom. nuyoo bi nag ma di ci jiital sëñ Muntaxa Basiru di ci tegaat Serigne Modou sëñ Moussa Naabel Mbakke di ci tegaat Serigne Modou Abdoulaye Mbakke ndax mooy sama Serigne. ah ci xéewal gi ak yokkute gi ak jàmm ci yàlla def ñu bokk ko tam defal nu ko ñu di ko ci sant bu baax ah di leen ñaanal yéen ñi ñëwit tey ñaan gi itam yàlla ko yàlla gën a jëme kanam ci li ngeen bëgg ak lañ bëgg ñu ñaan suñu boroom defal nu ay xéewal ak i ndam ci barke Serigne Touba. gitmayo roog a paax ngeɗayo roog jam yaso roog a ɓaata in a xeɗana in me jam ka mbug cosaan kon cosaanum lay o seereer of mene fo wiin we nu an no fop a an no mi xaali pulo jërëjëf mi xaali jool fo jërëjëf mi noddi yimɓe fof mi faala fof ara mi gola gole am yimɓe fof yiya inchallah kon jërëjëf cosaan moo tax njaay xéewal bëri boobu moom comme ni ma leen ko waxee yàlla may na ko lépp lu bokk ci wàllum paj ak wàllum ñaan mais damay njëkkee ci ay xeeti feebar dinañ ci cité yu bëri mais damay ñëw ci liñ naan loxo buy metti loxo buy metti nag euh, bëgg naa ci xam lan moo koy teg nit ki du ko jotee noonu nga ci mën a def ba moom doon rek lu dotee nag ki moom dee tàggoog sago loxo buy metti loolu moom ba tey daanaka lu koy joxe moom lañ ko joxe yàlla bëgg na yomb lu koy faj xanaa lañ war a wax lu ko lu koy lu koy lu koy dindi lañu war a laaj waaye lan moo koy joxe yàlla ngay koy jiiñ man de yàlla laa ko jiiñ man yàlla laa jiiñ ni moo koy joxe en tant que nag ki loxo téye ak lu métti métti bu yegsee ci man daan ko mocc ba mu ne tekk doot ba mu baax ci dogalu yàlla yàlla mayaat nañu ci loolu incha allah. loxo moom fu ñu ko fekk fa borom toog la ñuy mocc ba mu sedd guy mu jóg dem <coughs> waaye nag loxo su fekkee daa war a def yàpp daa war a def ndox. du neex man laa méttiwaat waaye lam war na am ci ay weer mbaa ay fan du ci àgg mukk tu tu borom wéru ci kàttanu suñu borom incha allah. incha allah doo gisee sax ñu posé question boobu dañ naan loxo bu soo waxee ñu ne jàmbur waaw dafa laal lu mu laal ñu liggéey ko loxo bi di metti ñaan yu mel noonu. loolu it ba tey laaj la bu am solo. bi ma la tontoo nga tontuwaat may amaat na solo ndax lu ñuy toj la bëgg mu leer nga bëgg toj toj nooñu lay toje loolu am na solo ndax la tax nga wax loolu am na waaye lu ci mën na nekk rek bu ñëwee lu koy saafaraa ngi fi bi yàlla defee tawat lu am yàlla am déet ndax looy def mu àgg mooma wax jii nuy wax nga dima jox ma lay tontu rek ci moom la bàyyi ko xam na nga woo loolu kon looloo tax lay itam lu mën a doon nit def ko moo ma gën a neex man <coughs> <coughs> buy def def moo ma gën a neex lu mu doon rek bu ñëwee incha allah fi mu toog moom yàlla may nañu loolu mm-hmm. foofu ñu xalaate jërëjëf dañu ñëw ci yeneen xeeti feebar bu ci mel ni asthme ak ndoxum siti ak hémorroïde mais damay njëkkee ci asthme asthme bu dalee nit ki nan lañ koy mën a xàmmee ci moom ci ni ma koy mën a xamee man mhm. asma moom sëqa ci ni ma ko xamee ci la bokk ak itam yàlla ji buy taw nga am jafe-jafe ak itam da ngay fat ak it saxaar si man noonu laa ko xamee waaye fu ñu ko fekkee mu bàyyi boroom incha allah ndax docteur yi moom nee nañ mënee su koo faj dañ koy dànk ñoom seen dëgg lañ wax waaye ñun nee nañ day wér pelek ci kàttan suñu borom te ko werante nañ ko seet ci kam dal ndoxum cité itam ndoxum cité paj mi yëpp moom la lépp lu baax mën a fajooti ci Sénégal rek feebar su doon mën a ci ne ma koy digal mooy nañ ca jëm ndax yàq na réew mi ñu bëree bëri amatuñu jàmm ndax ndoxum siti ak hémorroïde kon ndoxu siti boo koy laaj te nga naan ak hémorroïde lu koy dindi ndax sonal na askan wi ngay wax lii xasan loo doomu aadama yi ba muy am heure ñu tudde ko ñu tudde ko heure loola siti moo koy def baaraami tànk yi xar loolu siti moo koy def di weex tàll di sonal boroom di xeeñ teg siti moo koy def biir bi yuuxu seere lépp ci ndoxu siti la bu raxee nag émérite ñëw na ca moo tax booy wokkutu di wokkutu muy dog di nàcc te du nàcc sax day seeb boo ko seetloo comme ndox lay seeb boo ko laalee day ratax loolu mooy jàngoro ja soo naanee garab yi ñu la war a jox nag dafa war a seggalu comme ràkkal ak diw lu ci nekk séparé wu. am na solo man la xam ci gën a gaaw comme nit <coughs> su ko jëfandikoo du li gën a gaaw ci paj li ma ca gis ci li ma xam ci nun mooy mu ngi aju yow ci sa ci sa ci sa ci sa li ngay fay soo fayee mu mat ñu jox la lépp benn yoon ndax pey gi mooy bopp bi waaye ki ñëwtu amul nag lu mu def ñu liggéeyal ko waaye nag duñ ko forcé duñu forcé ñu bokk liggéey liggéey bi loolu moo ci nekk waaye nag li may bañ ci nun ak keneen ak ku dul man nañ fexe bu ku gisuñ njëriñ de bul topp waaye topp ni si itam waxtu wu nekk di ko laaj mu di la jox su gisoo ca dara dama koy aaye nit ñi wax naa leen waaw nit ki moom bu fekkee ñëw na ci yow gis nga lu la neex toppal gisoo lu la neex ba ko seeti keneen ndax réew mi kat noonu la war a doxee suñ ko defee rek Sénégal jëm kanam waaye dana baax dana baax du mën a gis dara man dama koo aaye ñëpp tey santaat yàlla ah di ñaanal foofu suñ bokki ñaankat yi yàlla nu yàlla defal nuy jubóog suñuy client waaye nag nañ am fulla ci suñu bopp nañ gëm suñu bopp ndax paj tey eh, démb la du tey ca maam ya démb la woon du tey ñun ñoo sàggan nag ba tubaab yi ñëw ëpp ñu doole ëpp ñu ay kayit téye lépp waaye ñun kenn mënuñu ndax nit ñaa ngi doon am doom di wasin te kenn du fekke nit ñaa ngi doon faju te docteur amutoon fu leen nit ñi dafa daan amee doom te docteur daawut teew loolu lépp li ñu ko xañ mooy li ñu yàlla mayut lañ mën a am ci suñuy këyit nu kaas ko war koo amee nañ ko war a amee waaye bu ñu ko ni amee woon am na foo xam ne mënuñu fa ndax tey su ma leen mënuñu nu fa am na foo xam ne ñoonu fa man waaye am na foo xam ne ñoo leen fay man ndax tey tey nee naa leen bu yàlla dogaloon nga indi fukki nit ñoo xam ne li ñëpp lakk mbaa ñaari junni nit docteur na ngeen leen jox ñaar rek la ca des lépp nañ ma ko jox te bu soobee yàlla bu ñu defee rendez-vous yoon la ñuy ñëw ci man kenn du si. toog wóor na ma ne maa leen di raw ndax dinaa wérle te duñ wérle ci kàttanu yàlla xam nga loolu baax na ci réew ndax lakk day rey dégale ji muy am moo am doole ñun nag fu ñu ko naanee naanu ndox ma rek mu métti ba nga mocc ko dangar ji ba ko complètement mu wér day dem rek góomam wér mu jeex tàkk loolu moo gën a neex may wax ne ndoxum ci moomu <coughs> bu yàggee day indi émorite nu muy indee émorite mooy biir buy yuuxu borom di seere xel mi jaxasoo bopp bu ëpp ràpp mu doyal sëkk àdduna du ci bëggati dara xalaatam yëpp mu def ko àlaaxira soxlaatu la nekk ak doomu aadama yi su ba du mën a jóg ci lalam mel ni kuñ dóori yaram yëpp bañ su yàggee bu dee góor daf koy manqué loo kàttan bu dee jigéen ñi daf koy manqué loo kàttan boo nee manqué kàttan ci jigéen nag dana jaaxal ñu bari waaye boo ñu toppee rek danañ ko àkkale ndoxu siti ak émérite day am comme ñu am na ñoo xam ne toujours ne ma koy ni ko Saalum Saalum bay waxee rek faa wax ne nii laa ko dee defee nii laa ko xame bu jeex takk waaye boo nee nii la de da nga juum waaye dina xame laay wax ki tuñam neewi comme tuñ mu neewi lay def ci suufu borom émérite <coughs> bi génn ngoog day def picc comme weenu béy émérite bi génn ngoog day saf comme kaani émérite bi génn ngoog day sotti dara émérit bi génn goog ci ni ma ko xamee bala ma cee am ba ma gën a dëgg nag ki nga xam day saf comme kaani du tëdd du toog am taab teg ca du ma la jóg dara du ko mën làcc la def jàppoo rek a ca des yóbbu kookaa ma neex ndax boo agsee bala ngaa génn kër gi yaay joxal sa bopp loxo def yéex naa kooku may la toujours li ma leen di wax rek bari bokkut xam ci bopp lay ne waaye nag. loo xam ne da koo fortaat ca mbedd ma di lu bokk la nga fekk baax muy sa maam. ndax ñun séeréer ci bu njëkkoon dañ la naan diw lii laa bëgg mu ne ko demal ci diw. ñu ne moonte kii di daa bari xam-xam kam ma yóbbu la ma ma demee damaa wér bariwul xam-xam daa yàgg a fekkee te ñeme dëgg <coughs> ndax ñun sëriñ si ku nekk xam nga la nga mën a sa morom bu neexee bu naqaree ku nekk xam nga ki mën dara. kon su boobaa da nga ñuy jokkalante munuma kon naa jox ku mon mu dimbale kooka nga xam ne askan wi dañuy noppalu ñun ñëpp dañuy dañuy dañuy am suñu bopp fireeku ci li def la. ci beneen ponk ko góor jigéen feebar boobu kàttan ci jigéen laa njëkk a tontu néew kàttan ci jigéen mooy jigéen ju amul yëg-yëg ca sëy ba. ci ñi ko xam ñam dal ginnaaw dalagule yàq sa soxna moom ca ñam dal laay wax nga xam ne bu ko darul danga ca ci xam dara ndax daf daw jigéen ñi am na ñoo xam ne bu jant bi soo duñ bëgg a jege seeni jëkkër am na ñu ci bàyyi seeni soxla pour mu dimbali leen ñu xam ko <coughs> ndax sëy bari ñoom waxuñu ca dara bëgguñu ko duñ am tem tem lu saf lay tax ñuy wax jigéen ba muy koy wuti ca góor moo du ne ca moom kon tem tem boobu il faut que rek ñu fexe ko seen nuñ ko def ba mu saf ndax mu mën a neex waaye tem-tem bi safut loolu mooy manqué kàttan ci jigéen la ca tegewaat am na jigéen ñi nga xam ne bu nuy sëy da dul neex day metti comme kuy jël ndaw loolu ak manqué kàttan du benn manqué kàttan mooy kii sëy yow te dara méttiwu la te yëgoo ne mu koy liggéey te it doo ko yàkkamti mukk doo ko coow ay même sa kay bëgg joxee sa morom yi da ngay sant yàlla ndax noo feexee nga bëgg ba nelaw rek. xanaa nan la ñu mën a def ba sëy foofu laa jëm tu àggaguma te maa laaj lu ma àggalagut ci laa jëm ma ne la kii sëy mu neex ak kii sëy mu naqari ak kii sëy bu du set mu mel ni kuy jël ndaw dama ne yooyu yëpp suñu borom def na mu am fi ki ci am jàngoro góor ga mbaa muy jàngoro jigéen ja am na fi ndax jàngoro jigéen mooy kuy tuur ndox muy am deret mbaa muy saw saw mi te dagg mbaa saw du doy lépp ci jàngoro jigéen la bokk ñu di ko wax soppis yooyu fu ñu ko fekk ci kàttanu yàlla wala naq buy metti rek nañ ñëw am nañ ciy tegtal muy góor ga muy jigéen ji ñoo ko bokk manqué kàttanu góor nag ku ne xam na ko laa war a jóg mënta jóg mbaa muy jóg ba noppee toog kenn du ko dimbale ndax am na ñoo xam ne ñu dem ba am yaakaar dara desul du doxal mu seey ñu gis dara duñ xam lu ñuy def mbaa ñu dem ba ca biir yëf yi dox ba mu yàgg xalam jékki-jékki rek dog buum dagg te borom daggloowu ko du neex ka ko koy jox du neex kañ koy jox loolu mooy manqué kàttanu góor ndax buy la mbax de neexut bu sañoon di doon comme yetu kel wow koŋ waaye moo jafe dañ ne nag ku ko bëgg nag ci kàttanu yàlla ñëwoon ñu seet wow koŋ incha allah jàmm rek. ba léegi ñu des ci suñuy question sëñ Basirou damay xuus jàllale ñu dugg ci maanaam nit koo xam ne day daanu rab yenn saa yi da dox gis ci mbedd mi koo xam ne day jékki-jékki daanu ci suuf di bërëngu ñu naan lii lan la lii lan la ñu ne day daanu ko loolu lu ko waral moom daanaka rek comme ni nga ko faral di laaj waaye comme ni ma ko faral di tontoo rek yàlla rek lépp lépp ci la moom ci moom la jaar ñëw dugg ci doomu aadama yi jaay na rab yi ni muy def nit ñi ne daanu teg ca kon kay mat na sëkk ndax mën nga koo faj kon moo fa ar tege ndax mën nga koo faj. ñu ne la waaw mën nañ koo def ñaan fu ñu ko fekk ci ñii daanu dañ koy dindi dama naan ku bañ ku weddi sa wax bul wax ma ne man danaa wax. waaye naa wax lu kenn mënta dindi ndax boo ko mënta dindi rek mu ne ci yow nga ba ko fa dafa am ñoo xam ne dañuy daanu su doon ci doon séeréer ombee fedit dañ koy wax ombee fedit lañ koy wax ombee fedit koy mënuma ko wax ci wolof waaye ombee fedit la ko séeréer di wax am na ñoo xam ne buñ daanoo ba noppi gimiñ nga day fuur am na ñoo xam ne buñ daanoo ba noppi duñ ko yëg buñ daanoo am na ñoo xam ne dañuy katt katt wow koŋ am na ñoo xam ne ñu ba noppee dañ fay saw bindal ca a ko wax bindal ci ñam dal kenn du ko werante baa ku ko werante yi doo am loo fi teg buñ nee waaw rek doy na fu ñu ko fekk suñu borom jëlee ko ca ñoom daa am yoo xam ne ndof la gu ëpp doole nit ñëpp mënuñu ko man mënuma ko waaye rab yooyu nga xam ne ñoo lay daaneel ngay say ak di ànd ak nit ñi dee léeg nga tàggoog nit ñi loolu am nañ ci ñaan boo demee bay waxtu itam mën nañ ci ñaan incha allah ndax lu ci ne bu buñ ko ràññalee kii jóg di ñëw du sonn waaye boo raafee leen dof yëpp mën nga koo faj rek ñëpp lañ lay indil tu mënoo ko bu nangu. ana ñoom bëgg a jëflante ak ñoom ñu mel <coughs> soo leen waaye mën a nekk ci kàttanu yàlla tu man maa woo téléphone nu mën a jokkoo avion yi moo tax dañuy naaw banque yaa ngi fi post yaa ngi fi poste nga koy jaarale nu yónnee la li la war a yónnee nga post ko moo tax may wax nit ñi léeg-léeg ne leen tigo bi mooy whatsapp bi nga xam ne ku ci woote whatsapp da nga may jot direct ci whatsapp bi boo ko bindee rek mooy whatsapp tigo bi mooy whatsapp bi saa yoo ci wootee ci bitim réew daa gën a yomb ci ñoom bu ne nee orange money bi ban la nga ne ko ti 78 euh, bi 78 bi moom la ci kàttanu yàlla yooyu yëpp dama leen ci yee ndax lu ci jàppalante ku mën a yónnee ci yoon weneen ligne ci yoon wi mën naa yónnee ci la yoon wi mu ñëw waaye am na yoon yu fi nekk yi ma yorul saa bopp nga xam ne boo koy dugal direct lay doon loolu noonu lay demee dañoo wax ne rab dëgg-dëgg li tax ñuy wax rab yow dangay ngay nekk rab ba noppi door a nekk rab. rab dëgg-dëgg. Mm-hmm. da ngay rab ba noppi doo a rab. waaw rab mooy nit ki nga xam ne dafay ñaan ci rab. war naa am xam-xam dara ci rab ba bu ëllëgee bu ko fajee mu mën a nekk <coughs> mooy li may wax nit ñi toujours rek xam-xam dëgg-dëgg ci bopp lay nekk waaye du loo xam ne dañ koy wër déedéet bopp ci lay ne foo toog rek war ngaa mën dara waaye fu ñu la fekk doo mën dara rek neexul ndax lii ngay gis nii tey fas yi jigéen yi ëpp ëmb yii damay wax nit ñu ne leen am maa la koy jox waaye a koy defar su ma la ko waxoon tey mu jaaxal la waaye ñaan kat dëgg dëgg dëgg li koy ñaanloo ci gannaawam lay nekk. rab moo koy defar. kay bàyyi yaa ngi doon a ñëw yow daal léegi nga laaj bu ma neex <coughs> nan la ko rab mën a defaree rab moo mën a ñëw fekk ma may nelaw mu wax ma sama boppam wax ma dama war a def ma koy jublu ca kon kay ndigalam la. ginnaaw yooyu ñëwoo rek jàngal ma dara maa tëdd ak samay nelaw mu ñëw ak man di ma déy mbaa mu dem bay jëneer di ma jox may jël kon kay mokk na su boobaa kay ma jógee man rab laay nekk ndax yi fi rab laay yor ndax ñoo ma ko jox looloo ma tax ma ne am nit la koy jox raba la koy jox nit la koy jox waaye raba koy defar man nag maay liggéey fas xëcc mu dëgër ma joxe ko su boobaa nag lañ ma jox ba ma liggéeyee ko ko raba ko defar <laughs> dégg nga uh-huh. ñu wan la ne nag foofu moo tax xam-xam yu bëri foofu lan gars yi di mënantee ndax dangaa fekkoon sa maam doon ko sa baay doon ko nga ñëw doon ko ñu di la tuurul ngay daanoo ko yuuxoo ko fët fëti ba ma ne man damaa dem ba xaaju xaaju rab laa ndax am na ñoo xam ne dañoo dem ba dañ leen a yeewoon dañ leen a yeew am na ñoo xam ne dañ leen di yeew ay fan am na xam ne dañuy muuma duñ mën dara ngir rab seetal ni fi mu ne nag ku ko xamul boo ko ko waxee mu werante ko waaye xam-xam dëgg-dëgg buñ na ko naree sol il faut que ñu def ci yow mandarga moo xam ne ku la xoore xam ne léegi ci yow. dañuy des ba léegi ci question yi jàll ci beneen ponk ñu koy tuddee wàllu papier te li ñu ne papier suñu xel dina jëm ci ñuy déposé ay fiches à passeport surtout ñi nga xam ne dañuy def concours ba sonn fa mu def ci ñoom. waaw kooku moom damaa wax ne fii ci Sénégal moom miin nañ ma diaspora ñu ngi may bëgg a miin. ndax li ngeen ma ci dugal comme li ma leen waxoon rek ñu ngi may bëgg a miin kayit wuta ca bitim réew wàllu kayit lañ lay wax wépp lu ñuy lijjanti ci gouvernement mbaa ñu di ko bëgg ci lu mën a doon muy aw kayit nga di ko xare du bëgg a gañe soo fi ñëwee suñu borom mën na ko sotto daaw day wax dëgg yàlla at mii jàll digguma kenn ku ne ma déedéet daanaa dégg ay ñaari mbaa ñett mbaa juróom waaye ren moom kenn wu ma déet kon damay yaakaar ne lépp a baax. nit ñi moom toujours booy liggéey ci ñoom ngay déglu ñaankat soo demee boo amee xel déglu ña ca buntu ba la ñuy waxtaane moo nekk ca biir ndax danañ ne man féex naa kii baax na kii liggéeykat la kon nit ñi ci bitti lañ lay siiwal kon kenn ku ci nekk dignité ji ñu war a am ñun ak fula jeeg fayda ji moo ñu mën a àggale fan jëm waaye du càgginu leneen ma bëgg it nit ñi xam nga ñaare dañuy tëkkale du dul bokk <coughs> bayram mbooloo ak xam-xam du benn bayre mbooloo ak xam-xam du benn mën ngaa dem ci ñaankat na ngeen ma déglu bu baax yéen ñi sëriñ ci xam nañ li may wax yéen yi nga xam ne yéenay ñaan yéenay ñaan lu xam ngeen li may wax mbooloo mi bari lool doo mën a fexe ba jote xëy suba ba jant so nga ne moo fi sut waaye boo fa yeggee am na ci ñoo xam ne boo leen joxee sa xaalis dootoo leen gis te metti na askan wi dañoo jóg ngir ñun damay bëgg ñu dimbaleen leen te yàlla tax ki séq ak yow ngeen di bokk di dem ba mu jeex takk ba ngéer waaye ñëw ci nit yëkkati seef jox ko ko rek te koo gisati baaxul nekk ca réew ma yónnee xaalis fii ci Sénégal di jox ko di ko liggéeyloo dara mu mu def ci neneen dootoo ko gis ba tey neexul maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy toujours maa ngi ciy xeex ndax bëgg ñun ñëpp ñu bokk góorgóorlu ndax lii ñoom ñëpp bokk bokk te kenn ku ci nekk la lay la lay yokk dëgg-dëgg ci ni ma gisee mooy na barkeel tey wax ji nga wax na tombeek li ngay def su ko defee rek day daal di noppal ñu ngi koy seqal nañu def ci beneen ñi nga xam ne nee naa leen ki ci am jafe-jafe sa diggante ak sa jëkkër balaa taraa xew teel ma koo yëgal ñu defal la ci ñaan ndax góor yi fi ne nii na ma yàlla baal boo dee góor boo góor yi kon yaa ngi ca biir kon xasoo ñooñu rek ñu ci baree bare ngi fi di bàyyi seeni soxna te du doon ko bàyyee sago ndax dañuy xëy xëy jëw ne sama soxna laa bëgg a jotaat jigéen bàyyi soxnaam. te góor góor bàyyi ko ba noppi moom soxna sa ñëw ne dafa bëgg dellu si waat te mu dem moo ko def moo tax sëy bi léegi war nañ koy teelu bu baax ndax suñ ko teelu du neex ndax da dugg foo xam doo bëgg génnaat moo tax ginnaaw yàlla boole la ak nit deel muñ ba yàlla jëlal fi lu ko dàq bariwul mën ngaa dem ci kuy ñaan nag ne dimbale ma ñaanal ma ci sama diggante sama borom kër kooku yàlla ànd na ci yonent bi jàpp naa ne ànd na ci ndax lu jëm ci yàlla ñoom soxla nañ ko ñaar ñu war a juboo lu am solo ngoog kon ki jóg ngir dimbalante nit ñi dañ ànd ak moom ci dimbalante ak nit ñi may wax nit ñi leen bari bokkut boo gisee ñu ma ko gën di wax lii ci la bokk jàmbaar ji ci la bokk tànk yu mett ndiglu yu metti mbagg yu metti di yëy di ruux di jam di maas comme courant fu ko fekk ci kàttanu suñu borom mu bàyyi borom jigéen ju ëmb lu mu diis diis ëmb ba woppaja lu mu bari bari joxal ma ko bii kii mooy takk mucc tubaab bi ne pikiir takkarnaase docteur bi ne pikiir takkarnaase ma la man takk takkarnaase soo nee hôpital fukki fan mënoo génn ndax sonn takkal bii léegi mën a delluwaat ci sa kër balaa jant so nga ñibbi kuy wopp ak ki nga xam ne moo ëmb bëgg am doom yëpp la baax bëgg jëkkër mu ko am na bëgg soxna mu te am na. jërëjëf jërëjëf dañuy jeexale ci combat Ama Baldé ak bi combat boobu ah, dañ jàmbat la ci réew mi mm-hmm. waaye dama ci jàmbat man moom sama jàmbat mooy yal na leen yàlla la may ndam ñoom ñëpp. waaw kenn du mën a ñàkk daal moom. waaye day am loo xam ne <laughs> dafa diis ci waxukaay boo ko xasee yëkkati ba génnee ko wax ak bal dañoo xaw a tolloo doole te su xasee génn rek dootoo ko mën a delloosi waaye dama la ci waxoon keroog rek xam naa mos naa naa wax ne la su nit ñëwoon ci man ba ci man ñu waxtaan ca mën naa koo am lu ma ko jox wax ko la ma koy wax maak moom waaye nag média dafa diis tooy it kenn ku ci nekk war ngaa seet lu la yokk. ci njëkk la ko loolu yi su la ko waxaatee ba tey day diis dama ne la ku fi ñëwoon ba ci man dinaa xam la ma koy wax waaw dinaa xam li ma koy wax. dëgg la nag yow li nga bëgg mooy ma ne la di way daan rek. na mel rek xam nga yow la bëri bu boobaa nag di koy manqué loo ko nangoo du neex <coughs> bu boobaa ba nangoo manqué loola. bari bokkut dafa am lu tax lépp looy wax yaqin la Modou ba may wax ci moom ah kombaam bi yàlla booba fekkiwu ko dox naa ca lu wér te ña ma ko séqaloon te wax ko ak ñoom leeroon na nañ te fekkiwu ko woon maa ko waxoon te Modou Lo di dindiwu ko. ca Modou Lo dara dindiwu ko waaw li may waxaat ci moom ak Ama Baldé damay ñaanal leen yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp. man loolaa leen di ñaanal waaye day am loo xam ne ba ma ko ñaanee su ma ca waxee day diis ndax ginnaaw joxuñ ma lu ko jar ma wax ca lu neex nit ki boo ko bëggee wax loo da koy jox gémmiñam da koy feesal waaw boo ca duyee dara mu fees dell nga mën a wax waaye nag ginnaaw kenn joxuma lu ma waxee lu ma mën a wax booba yi sama yaram a tàngoon rek ma wax li ca moom moom moo loo moomu booba sama yaram moo tàngoon ma wax la ma waxoon te na ma ko waxee lépp dama yàlla dimbale ca moom ci kàttanu yàlla ndam mooy ndamam loolu ma yor rek dana doon arène bi kay jeex na tàkk. moo kan nga mooy combat bu mujj bi ak bu mujj ka boobu kat yaakaar naa Sénégal ñëpp miin nañ ko bi mujj bëri kay ñëpp miin nañ ko xamatuma ko de. <laughs>